جيران ñu defar yoon wi sëriñ baa ngi ñëw Mbakke egg leen suuf egg leen suuf sa bokk yépp ngi nii maye Cheikh Makhtar ka mu ñëw mbooloo mi yëg leen suuf دم ملي وقت تانوي واي فرق يتب يعني مي لو تم من الشيخ مصطفى بالشيخ عبد المرتضى قول يلا نبوري مكة يورك لن يدغلو واتوانغ نجي خلي المصطفى نجي مسنت الله يلا Macky dem ba léegi adduna bépp ànd nañu sant na waaye tey nag fay gaa ngi moo tax lu bëgg lu dal ñu tàmbali waxtaan wi ndax waxtu wi léegi mu jot te ku xam na Cheikh Sidi Maxtaar ak waxtu ma bëgg nag ñëpp dal Mbakke xol yi sedd na xel yi dal na yaay Sëriñ Tuubaa nga fi yàgg Mbakke téwér l'islam bi ñëw na gouvernement bi ñëw na opposition bi ñëw na ñëpp ñëw nañu Mbàkke moo def bàyyi kàddu gi ak Sëriñ Maxtaar Ka Sëriñ Maxtaar Ka mii may bëgg a jox kàddu gi nag soxna Mbeen ñun sëñ Fallu moo ko jur sësub sëriñ bee moo jur yaayam muy sësub sëñ bi dama bëgg kii toog di wax ñu xam ni sësub sëriñ bee soxna mbenn jur ndeyam yaayam sëñ Fallou ko jur sëñ Fallou ak Cheikh Madou Lamine Baara ñoo bokk lépp yoon waa ngi kii taxaw dafa bokk ci yoon wi war a lakk arab tuuti nag ambassadeur yi dégg ko ma bëgg ñëpp dégg ko waaye Mbakke xol yi sedd na xel yi dal na xam nañu yaay Serigne Touba l'islam bi wuy si na ñaan Mbakke nga yàgg lool li nga sëmb ci Tuubaa gi sëmb ko ci Ndakaaru sëmb ko ci lislaam noo ngi ñaan nga yeggale ko te tëmand ak wér sarak yëpp a ngi nii nag ñi nga bokk sëñ Bamba yéen nañu nga yàgg fi lool benn seefe fi ne moom lañ ne battaleen yaay sëñ Bamba suñu waxtaan bismillah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 وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن العبد الخديم الصابر الشاكر القائل يا رب إن أعطيتني فالشكر وإن منعت فرضا وصبر والقائل حان شكر الإله حان في ترابي بعد جميل الصبر في اغترابي أيها الحفل الكريم قد يرغب الإنسان في جلب منفعة وتحقيق مصلحة فيتوجه إلى ربه متضرعا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ولكنه بعد نيل المرغوب ينكر الجميل ويخون الأمانة فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون وقد يرغب في دفع مضرة فيتوجه إلى مولاه خاشعا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولكنه بعد حصول المطلوب يخون الأمانة وينسى العهد فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق وقد أراد الشيخ الخديم أن لا يكون المريدون والمحبون من الذين يكفرون بالنعمة وينكرون الجميل يقول رضي الله عنه فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين أيها الإخوة الأعزاء إن حياة الشيخ أحمد بامبا المباركة وأقواله وأفعاله وأحواله كلها تجسيد, تجسيد حي لإسداء الشكر إلى المولى عز وجل استمع إليه وهو يقول مسكت بالذكر الحكيم البين وإنني بالحق ذو تدين أعبد ربي بخير السنن وبالفرائض ويعلي منني يشكره كل بغير ددن إلى جنانه وصفى ديدني ويقول لك شكور ربي من محرم لختم ذي الحجة ختم الحرم وأنت الآن أيها الشيخ الخليفة تمثله بقضاء الله وقدره تأمر بأمره وتنهى بنهيه نسأل الله أن يحفظك ويرعاك لما فيه صلاح البلاد والعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ سيد المختار يال نانك في ياغ تم عندك وير الشيخ سيد المختار كيلي فوكو دال الشيخ سيد المختار كيلي فوكو جابو الشيخ سيد المختار كيلي فوكو بو جافي نييب ييمو تي اي وخام نيو Cheikh Sidil Muxtaar kilifa goo xam ne bu sañoon ummatu muhammad alayhi salaatu wasalaam bépp benn rek la ñu doon bis bi bu mu dëgmalee da ngaa yëkkatee sa kàddu woo ñëpp waaye ñëpp wuyu nañu sa woote ndax ñi mën màggal si màggal si nañu ñi munta màggal si itam màggal nañu kilifay diine yi ñoo ci jiitu te danaa ci dikk association islamique mi ngi ñoo ci jiitu gouvernement gouvernement du Sénégal ki ki ci yàlla jiital bëkki dem mu la fi jóge yabalaat na mbooloo ñi ngi nii toog suñu joxee kàddu gi jëwriñ ji yore biir réew mi dana la limal mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal opposition bi kenn desul ak nag parlement bi kenn desul ak jaambur yi nga xam ne féetewuñ fenn kenn desul ak nag corps diplomatique bi nga xam ne ñooy ñi teewal seeni réew fii ci senegal ak nag gan ñu bari yu bàyyi ko bitim réew ak nag sa bokki bopp yi muy njabootu Cheikhul Khadim ak kilifa yoon wi ak taalibe yi ak soppe yi délégation bi bi mu egsee sa taalibe Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy meeru dëkk bi moo nekkoon ci seen wet dalal leen ànd ak ñoom ba ba ñu toog ba dal te sëriñ bi Cheikh Abdoul Ahad def na ci màggal gi loo xam ne du ko wax waaye lim def ci bis bi xaw naa defar bis bi loolu dañ la koy seereel bi nga wootee nag kilifa yi wuyu si dama koy lim bu gaaw a gaaw a gaaw ndax waxtu bi dafa jege wante damay tàmbalee ci alxadratul malikiya fii Tiwaawan sëriñ Cheikh Ahmad Atijani digal na rakkam ne ko na yabal ndaw mu yabal sëriñ moor si mu ànd ak mbool njaasaan xalifa ba yabal na cheikh bu xalifa kunta mu ànd ak mbooloo sa doom sëriñ Moustapha si bu al mustarshidun wala mustarshidaat yabal na al haji malik Mbay mi ngi ni tok mo len jité al usra al omariya wa kër Cheikh Omar yabal nañu mbolo Cheikh Tidiane tal jité ko ak Cheikh nouru ak Cheikh Omar Medina bay mbolo teew na ci njitul Cheikh abou Niass fa fami fa Ahmadou Baro njegen def nañ nañu daan def Serigne njegen fan wéré at muy tew ci magal gi Thiénaba sa mbokkuma yabal na mbooloo sëriñ Gora Seck moo ko jiite laayeen sa mbokk ma yabal na mbooloo Sidna Isa doomam moo ko jiite lew na alhaaj Ibrahim Niass yabal na mbooloo al imam Mouhamad Arabi Niass moo ko jiite ndeer naar Mouhamad jullit kunta ànd ak mbooloo jaamal Cheikh Ousmane sisi ànd ak mbooloo waa kër sëriñ Abbas Sall jéeri bax ànd ak mbooloo ahlullahi ndànd Cheikh Moustapha Euh, Cheikh Moustapha ak Baye Thierno Dramé ànd ak mbooloo ànd wutal jàmm Oustaz Ibrahim Ndiaye ànd ak mbooloo askaay Serigne Ndongo Maar ak Serigne Mouhamadou mbay ànd ak mbooloo mbooloom imaam yi nekk Pikine Alhaaji Malick Niang jiite mbooloo këri diine yi sa doom Serigne Habibou Sakho ànd ak mbooloo al imaam Ismaël Dem di sa doom di sa xarit di boroom xam-xam naka jekk day teew ci bis bi diigaan sëriñ ba yabal na Cheikh Ibrahima Sow mu ànd ak mbooloo waa kër maam Masamba Thiam al Mourchid Ahmad ay Eyane Thiam ànd na ak mbooloo famille buur Sine Kumba Ndofène Diouf yabal nañ mbooloo sëriñ Alxaaji juuf moo ko jiite fami Jimbira yabal nañu mbooloo Cheikh Talib yooyu Jimbira moo ko jiite famille Alxaaji Ndiaase Mbay ca Thiès Pape Hassan Mbay moo ànd ak mbooloo ñëw njabootuk Alxaaji tiijaan Ñang maam Mballa Ñang ma nga toog ànd ak mbooloo njabootu alxaaji Mbàkke Tànjang yebal nañ mbooloo Serigne Mbàkke Tànjang jiite ko waa kër alxaaji Omar Ndaw ci Daaru Salaam yebal nañ mbooloo Mouhamad alxaaji Mouhamadul Maahi Ndaw jiite ko waa kër alxaaji Ceerno kànj ci Njaarim yebal nañ mbooloo alxaaji Kanji moo ko jiite waa kër almaami Maba Jaxu Ba mi ñëpp xam yabal nañ waa kër al imaamul Mahdi ca Wuro Mahdi yebal nañ mbooloo alfaahim Ba moo ko jiite waa kër maam xaali Amar Fall mbooloo fa bàyyi ko Serigne Boubacar Fall moo ko jiite waa kër almaami Maba Joxu Ba mbooloo moo fa bàyyi ko Serigne Abdul Wahab Ba moo ko jiite waa kër borom xam-xam ba alxaaji Mouhamadou Fatha Sakho mbooloo fa bawoo Cheikh Ibrahim Sakho jiite ko waa kër Cheikh Mouhamad Nabi Guèye alxaaji Mouhamadou Kamara jiite na mbooloo waa kër Cheikh Muntaqa Kala Dramé mbooloo moo fa bàyyi ko Serigne Mansour Tall ak Serigne Aliou Dramé waa kër Cheikh Omar Sall alxaaj Malick jiite jiite Malick Diop jiite na mbooloo fulaadu ca Ndakaar Thierno Ahmad Seydi ànd naag mbooloo fulaadu ca Kabindu Serigne Mouhamadou Lamine Cissé ànd naag mbooloo grand Serigne de Dakar alxaaj Sangoone Diagne moo ko fi teewal Guet Ardos Sidi Mouhamad Oumoul Bah moo jiite mbooloo ma Oman euh, appel international Serigne Mbacke Fall ak Serigne Talla Omar Lay ànd ak mbooloo daaray Kokke Cheikh Ahmad Moukhtar Lo ànd ak mbooloo Kédougou Serigne Yoro Mar ànd ak mbooloo Koyli alfa sëriñ Moustapha Ba ànd ak mbooloo Lubundu sëriñ Saadou Abi Sow ànd ak mbooloo Paal Chérif Ibrahim Ngom ànd ak mbooloo Ngouraan Serigne Makhtar Seck ànd ak mbooloo Nimzat Cheikh Touradu Haydar ànd ak mbooloo Rumde Thierno Ousmane Mouhamad Aya ma nga ne toog ànd ak mbooloo waa kër Thierno Mouhamad Sy ca Gédé ca Fuuta Thierno Abou si moo jiite mbooloo mi mbooloo mi nga xam ne ay imaam lañ ak ay waaraatekat te Cheikh Ibrahim Ndiaye jiite ko teew nañ fi mbooloo mi mi nga xam ne dañoo bennoo liggéey liggéey lislaam Cheikh Thioub jiite ko ànd ak mbooloo jamiyatul ihsaan wal islah Serigne Mouhamadou Diouf jiite ko ànd ak mbooloo waa kër tafsir Mor Ndiour Serigne Mouhamad Ndiour ànd ak mbooloo waa kër Alhaji Omar Dramé Omar Serigne Omar Dramé ànd ak mbooloo waa Pire Serigne Maodo ak sëriñ Mansour Cissé di say rak ànd ak mbooloo. waa Ibadu Rahman Serigne Mbacke Babou ànd ak mbooloo Morolan Serigne Jibril Combaan ànd ak mbooloo waa kër Cheikh Ahmad Quraish euh, sëñ Ismaïl Ba ànd ak waa Bamba Modi Alhaji Omar Sall ànd ak mbooloo Ndànk Ali Makhtar Kunta ànd ak mbooloo Guyet Chérif Moustapha Haydar ànd ak mbooloo euh, mbooloo mii nga xam ne tam ay boroomi xam-xam di ay imam imam Ahmad Dam Ndiaye jiite ko euh, di sa doom ànd ak mbooloo Pete Warak Alhaji Jibi Ndiaye ànd ak mbooloo alwaxda sëriñ Mouhamadou Baro ànd ak mbooloo mbalaxe sëriñ Aliou Dia léegi la nuyu mu ànd ak mbooloo waa mbooloo mi mbooloo mi nga xam ne dañuy liggéey lislaam te jaaree ko ci këri diine yi te sëñ maam Cheikh Mbacke moom sëñ mu Awa ba jiite ko ànd ak sëñ Babacar Cissé ak mbooloo waa taslima Casamance alxaaj Xalifa Jaabi ànd ak mbooloo mbokki naar yi nag sëriñ bi damay taxaw foofu tuuti ndax président bu Mauritanie dafa def lu rëy ci màggal gi def na ci loo xam ne xaw naa mën a defar màggal gi yabal tam protocole am ñu teew ci màggal gi yabal tam ambassadeur mu teew ci màggal gi loolu sëñ bi moomu ko gën a xam ñi koy seereel mbooloo mi waa kër Cheikh Hamallah ca Mali ren lañ fi jëkk a teew doomi xalifa bu mu Cheikh Aminullah teew na fi waa kër Achazaliya Rosso Cheikh Baba Tall ànd ak mbooloo waa kër Cheikh Mouhamad Ibn Ahmad Misk ànd ak mbooloo Zawiyetu Shurafa Tigmatin ànd ak mbooloo Zawiyetu Shurafa Garak ànd ak mbooloo Zawiyetu Shurafa Tungeen ànd ak mbooloo Zawiyetu Cheikh Mouhamad Fadl Wul Mamin ànd ak mbooloo al mujama al madani bi Rosso ànd ak mbooloo Zawiyetu Sarsara ànd ak mbooloo Maatu Mawlana yabal nañ mbooloo al Xasaniyin yabal nañ mbooloo Cheikh Hamdul Ishaq yabal na mbooloo al Xaajiyin ànd ak mbooloo Cheikh Mouhamadou Yadaali ànd ak mbooloo Itraza di buur bu bees ànd ak mbooloo Cheikh Maawul Aynayni njabootam teew nañu Zawid Halil Hasan wul Hamadi moom la maamam njëkk sëñ bi njëkk jox wird ànd ak al Fariq Ahmad Bamba wul Baaye ànd ak al Wazir Maajin Ba andak ak mbooloo député Mouhamad Tayfour ànd ak Zawid Fath andak ak محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساق منتخى مكة زاوية زاوية التيسير واكر الشيخ سيدي محمد عندك مبولو الشريف حمادي عندك مبولو السيد محمد الامين والشيخ عبد الله عندك مبولو السيد سليمان والدرمان عندك مبولو banu daymaan ànd ak mbooloo ahlu salaax assalaaxi ànd ak mbooloo asharif habibullah yàgg na fay teew ànd ak mbooloo zawir cheikh ahmad wul fatan ànd ak mbooloo asharif cheikhuna mouhamadul hasan wul cheikh ishaq ànd ak mbooloo sëriñ bi mu ne ñu may rakkam ju baax yi mu dugg si sëñ Fall moom Cheikh Mouhamadul Mourtada rakkam ju baax ji la ne nañ ko may mu dugg si nañu ko may mu dugg si sëñ bi nee ñu may ko. mbokk yi ambassadeur Gabon am na fi ñetti fan président Ali Bongo. moo ko yebal na ko na nga dem màggali te boo demee nanga am Touba ñetti fan ziyaara na sëriñ bi waxtaan na ak Cheikh Mouhamadul Bachir ibn Cheikh Abdoul Qadir kon dañ koy seere mbo seere la mbooloo mi euh, ambassadeurs yi nag nii la tëddee Cameroun seen ambassadeur teew na Suisse seen ambassadeur teew na Niger yebal nañ ambassadeur euh, Algérie yebal nañ ambassadeur euh, république arabe égypte yabal nañ ambassadeur philistine al muhtalla wa nasalullah an yafukka asrahum yabal nañu mbooloo iran yabal nañu mbooloo ambassadeur moo ko rwanda ambassadeur am teew na indonésie ambassadeur am teew na mauritanie ambassadeur am charge d'affaires ci ambassade bu maroc teew na consul bu Tchad ci Dakar teew na consul bu ci Dakar teew na rabitatul alam al islami muy ligue mondial musulman euh, teew na jamii daawal islami bu Libi teew nañu mu des nag sëriñ Serigne Mor Gaye bu Nayoobe yabal na mbooloo euh, teew na yabal na ànd ak mbooloo Gàmbi nag sëriñ bi Pape Demba Diop mala fa nekkal yor fa sa kàddu ànd naag mbooloo tey jëf ci liggéey bi ngay liggéeyal lislaam jëf yu rëy moom mbooloo ma mu àndal Cheikh Mouhamad Tahir Ka bàyyi ko Gàmbi imaam Ibrahim Kanté bàyyi ko Gàmbi ànd ak mbooloo a Cheikh Qaribullah Kabara mu ngi nit dend ak yow al al xalifatul am li tariq al qadiriya fi Nigeria teew na sëriñ bi ànd ak mbooloo te yàgg naa teew fii ci senegal ministre bu tudd Odibo Kidi Nigeria la bàyyeekoo teew na yabal nañ docteur Adjan Al Husseini amid kulliti Dar es Salaam bi Turkiya tewna ci bis bi andak mbolo Angleterre imam Babakar Ahmad tewna euh, docteur Ibrahim Chongan tewna Sudan, Soudan al oustaz Hatim Abbas ma nga ne tok euh, tewna Côte d'Ivoire Ustaz Bamba Moussa teew na ak oustaz Idriss Koné ak soxna suñu wax Transéré Célestine mu nekk député ca assemblée nationale bu Côte d'Ivoire Irak ayatullah السيد عماد Hakim ممثل المرجعية الكبرى في النجف الأشرف ما توك تيوال في العراق ونسأل الله أن يعود السلام إلى هذا البلد الشقيق نيون موي نيغا خامني نيو فيتيو نيو لين دون تنك كون سيرين بي يال نغا في ياغ تي يال نغا وير تا سيمبو ييغا سيمبل الاسلام يال نانكو اغالي تا اغالي كو اك ساغوت ليب يال نانكو اند اك ياو فولادو صاح واخناكو بو دكار اك بو كابيندو tudd naa ñaari délégation yooyu teew nañ kon xañ na li des ci liste yi ñu may jox boo ca kanamee ma man koo dugal wasalaamu aleykum wa rahmatullah kon dañu jox Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamad Bachir di jëw nañu sëriñ bi mi ngi toog ci wetam mu sànni ay kàddu lu waxtu xat-xat rek mu sànni ci ay kàddu bu noppee ñu jox ki nga xam ne moom la chef de l'état yónni muy Abdoulahi Daouda jàllo mu wax li ñu ko yónni bu noppee ñu jox Cheikh Mouhamad Bachir mu tontu ko ci turu sëriñ bi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sant bu baax suñu borom delloo siyaat ci jataay bi eh, dëgg la bisu cant rek la waaye dañuy jiital gën a yeesal suñuy jaayante. Eh, noo ngi gën a santati sunu borom bu baax ñu boole sëriñ bi di gën a santati bu baax sëriñ bi muy sunu lépp te ak ëllëg dina sant nag cant goo xam ne gu rëy rëy rëy la ndax taxawaay bi moom jërul baax ñépp xam nañ ko taxawaay bi mat na sëkk rafet na lool eh, dara ci xanaa ñaan yàlla bàyyi la fi rek ba nga àggal sa liggéey Euh, sa njaboot gaa ngi nii njabootu njabootu sëñ bi ñu ngi nii teew ci sa wet euh, ñuy gën a sant suñu boroom mi nu booleeg sëriñ bi di gën a sant sëriñ bi mi nu mi leen fàggul seen melo yi euh, fa tabaarakallaahu xam nañ seen bopp sëriñ bi mooy seen moom moom rek la ñuy dund boole wuñ koog dara ak gutteefu sëriñ bi itam feeñ ci ñoom ci biir ak ci bitti ndax lu lu yàqu addunaa ko yàq sëriñ bi fàggul na leen ba génn ne adduna ci ñoom dafa fekk na xam nañ seen cër xam nañ sëriñ bi it moom la ñuy dund xamnañ seen bopp fañ war a yem rek lañ yem kon noo ngi gën a yeesa suñu jaayante parce que ni ànd ak yow ci sunu biir ak sunu bitti sëriñ bi sunu cant ak yow mënoo su ko wax ci làmmiñ ndax ba nga defee lépp la nga war a def da nga wëlbatiku jàkkaarloog noonu dimbali nu ci sunu ngor dimbali nu ci sunu pësteef dimbali nu ci sunu jom diine yooyu yëpp matale ko sunu diggante sa sa diggante sa sa ñoom kon cant gi du luñ mën a wax ci làmmiñ dañ koy seeral Serigne Touba mi mi nga fi nekkal rek di ko liggéeyal jërëjëf Mbacke noo ngi sant bu baax a baax la ca des bi mooy nag euh, gàtt xat na waaye ci gën a am solo il faut que ñu wax ak sama ma wax mooy bokki taalibe euh, nanu góorgóorlu bu baax euh, sant rek ci leen war a sax waaye lanu ko war a booleel nag moo di mën a sant mën nu ko mën a mën a sant sëriñ bi buñ ko mënul it mu nekk ca suñu kem kàttan lan koy mën a sant nag moo di sëriñ bi boolewul dara boroomam biñ ko noppee biñ ko gisee biñ ko noppee gis ci boroom rek la nekk te lu dara lu boroom kon dëgg la suñu xel dal na ndax fàggul nañu lépp waaye amee nañ ko cant gu rëy nañ koy sante nag muy nekkal ko ci li mu li li li li mu bëggoon bëggal ko muy sax ci jaamu yàlla rek sax dàkk ci lëggéeyal ko na mu doon lëggéeyal yonent bi lu nu ko tële tële tële nañ ko na jaam yéen te am ci pasteef te ci suñu yëtte yëpp di ko sax fas yéene sax ci lëggéeyal ko te yàlla tax eh, nanu góorgóorlu bu baax ci sunu diine góorgóor bu baax ci lu taalibe ndax lu ñu ko tëye tëye sant itam bu ñu góorgóorlu ci sax ko ci sax sax ci fas ko euh, sant mun nu ko sant sax waaye nu góorgóorlu bu baax li mu bëggoon nekk ca boole ko dara bëggal nu ko nan te nekk ca loola bañ ko boole ak dara muy jaamu yàlla ak liggéeyal ko ni mu doon liggéeyal yonent bi loolu ah loolu rek lañ ko mën a sante loolu lépp la muy indi rek mooy la la la koy mat mat ma koy tax lépp nag nu sagalal ko lislaam nu sagalal ko lislaam kenn ku ne na am jomi fu mu teew ndax mat ab royukaay ci lislaam nun bokki taal bi yépp nanu góorgóorlu ci fas fas yéene mën a mën a sant sëriñ bi nan góorgóorlu ci li mu bëggoon fonkol ko waxtu yu juróom góor gën a góorgóorlu ci infaq ndax léppam da koo jaamoo boroomam liggéeyal ko yonent bi kon nañ ko nekkal ci li mu bëggoon rek nañ ko fonkal suñu diine te nekkal ko ci suñu kem kàttan bu ñu dëggul ci loolu ci sax ci mën nu ko sant sax loolu rek lañ ko mën a wane suñu suñu jant sax dàkk na ci sagalal ko lislaam liggéey baa ngi fi kenn ku ne ci ñun ñun dañoo baaxoo joxe suñu bopp ñu ne dañoo jaa baaxoo joxe suñu bopp nag nan tàmbalee ci suñu bopp nan góorgóorlu ci suñu bopp jiim jiim a defar suñu bopp joxe gën a joxe gën a gën a mat gën a rafet joxe da ngay joxe lu baax te dana joxe suñu bopp nu góorgóorlu bu baax sëñ bi moom. fagul lu yëpp waaye cant ko ameel nag nan ko nan nan nan nan gën a feeñ gën a sax ci ci ci sax dakk ci jaamu yàlla liggéeyal ko sagalal ko lislaam ci wàll yëpp nag yaatu na lool infaq nag lu lu lu am solo ci lislaam la euh, sang bu baax ba lu gën ñëpp liggéey bu réem ba yëpp waaye ku miin ay ndigalam da nga xam ne infaq mooy dundule lala yàlla wër sa liggéey nga góorgóorlu bu baax gën ko gën a delloo sama sa borom gën ko delloo sa lépp ca wootu yu jëkk ya am na lu xewoon moo gaa yu baax yooyee ñu mu àndaloon kenn ku ne war a def kenn kàttanam ca loolee mu doon woote muy liggéey bu rëy sidna Aboubacar yàlla def na moo jiitu lépp dafa joxe la alalam lam am lépp yonent bi ne looy dese mu ne ko yàlla ak yonent bi lay dese sidna war joxe genn wàll alalam sidna Ousmane waajal ab xare mooy ñoo ko tàmbali waaye ñu ci ñëpp itam kenn ku ci ne da nga daa mën lépp da ko daa def te sëriñ bi mii ku baax kooku rek la xool gannaaw booba moom ba mu ko joxee ba ba mu ko joxee ba mu ko ñee moom rekk la xool lam daa lam daa defee lam daa santaane ca la nekkoon noonu gaa yu gaa gaa yu baax ya noonu ñu doon def ànd ko ku baax ka ñi jëkk ànd ak moom ñépp noonu lañ def ànd kook moom sëriñ bi rekk lañ bëggoon te yàlla tax yàlla teral na leen jox leen wërsëg bu rëy waaye soxlawuñ ca dara lépp dañ ko daan jox sëñ bi sëñ bi delloo ko ci boromam nanu xool suñu bopp bu nu jombale suñu bopp loolu dara gaa yu baax yi lañ daan lañ lekkoon bu ko jombale suñu bopp ñii sëriñ bi ñii jëkk ànd ak sëriñ bi lañ lekkoon bu nu ko jombale suñu bopp ndax dara ci baax jombunu ndax sëriñ bi mënu suñu borom booleel kon nu góorgóorlu bu baax sëñ bi am na lu ko ñor liggéey sëñ bi rek a ko ñor ci lislaam te mi ngi ci seen yu rëy visuel bi ngeen xoolee gis ko nii semb na ci semb mu semb semb yu rëy rëy ak la la ci ndakaaru ci sow jant muy semb yu lépp dékku na ko mu woyof ci moom tey fas yéene la la yépp lam ca mu jëfe ko na mu a sëmb yeneen loolu moom mii moom lañ am moom nag moom itam noonu rek la am kon sëmbam yu rëy yii li muy rëy rëy rëy sunu bopp yi la tegu nan ko xam bu baax mi ngi maa ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi fàttali liggéey bii liggéey bii mu tiim di ay sëmb yoo xam ne joxoon na leen digal jëfe ngeen digal la seen seen gëm kàttan lu ngeen mën def ngeen ko ci waaye nag du loo xam ne aw sas la ab liggéey la boo xam ne dinaa dañu koy joxoñ feeñ muy noppi suñ lépp dañ ko cee war a def ba muy noppi ba muy ñu dégluwaat leneen kon na ngeen xam ne liggéey bi li li ngeen feen jeexagul sax waaye nag dañ ko bàyyi xel def ci suñu kem di def ci suñu kem kattan suñu sas la woo xam ne feeg muy noppi euh, mbëru noo taal dara loolu moom dolli woon na ci daara ji euh, sëñ sëriñ bi moo ko fi bàyyi woon bokkoon ci li nga xam ne moom la disal borom muy daara joo xam ne euh, mucc yoon bi lépp mu nga ci aju calukaay ji kon na ngeen nañ bàyyi xel daara ji nañ bàyyi xel daara ji eh, nañu koy defee nag moo di lii nu lii nu tiim lu waay mën day day day koy génne andi jox ko ko mu nga xam ne ci liggéey bi nga ko jëme waaye am na jiitu yooyu yëpp aaday murit joxe addiya nan bàyyi xel addiya ndax lii moo jëkkoon a wax ci ko baax ak ñam àndaloon ak sëriñ bi bi mu ñëwee ak ñi mu jëkk àndal addiya lañ jiitaloon addiya nag kon mel na dara jiitu ko ci infaq ndax lépp lépp moom la war te lépp am na yéeneem am na pasteefam lépp am na yitteem kon ginnaaw lépp moom la war نانو جيت الاديه اه لو تي واي من نا خامني سيني توبا تيو مو تكو مو تكو سي لوخوم نان باي خيل لولو باي خيل دي جوخي اديه كومول واخ سو ولاي تام وارس نكو من يينا كي سي وون صاح نك لولو موي توخين يول مي نين گن كو خام moom liggéey bu teew la moom da ciy nekk kon ginnaaw jox leen loolu ndigal nanu nanu bàyyi xel suñu digganteeg moom yi ji nga xam ne moom moom mooy moom ci lay liggéeyee bàyyi xel seen bi nga xam ne da ko ànd ak ñun jox lu ci ndiggal loolu lépp ku ci ne la nga am néew bare mën nga ne lii mën ngaa yóbbu lii sa sa sa diya mën nga ne lii ci la ci ci ndigal laa ko def. dëgg la ñi ngi ko doon def waaye ngeen gën a xamee ne noonu mooy yoon wa te nu def ci suñu jom def ci suñu yitte jiite ci suñu yéene gën cee wéral suñu pësteef sax ca dàkk noonu mu ngi nii dama leen ko jottali waaye mooy jox ndigal li kon nañ ko dégg nun ñëpp ko ku ko déggul na ko na na na ko jottali ko déggul ma ne ma ne su la toog loxoy te loo nekk lu dul nekk ci yàlla ak neen rek la loo nekk nekk ci yàlla ak neen rek la dëgg la suñu na toog nanu nga ami bëgg-bëgg ami bañ-bañ waaye lépp lañ jiital suñu boroom kenn du am na ci ñi ñëpp sax kenn ku ci ne la yàlla jox mën nga caa génne loolu dese ca loo mën a faje say aajo dañ koy bàyyi xel lu ñu muy nas loo xam ne mag ñi ñoo ko nasoon ñi jëkk ana sëriñ bi ñoo ko nasoon bàyyi ko fi kon nanu ñu xam ne sëriñ bi moo mooy mooy mooy mooy suñu lépp tey ëllëg eh, lim nu fi bàyyil mooy suñ doon mooy jaamu yàlla liggéeyal liggéeyal ko ni mu doon liggéeyal yonent bi loolu mooy suñ doon buñ ko sàgg sàggane waxtu wu ne nañ ko teg suñ kanam di ko soññee suñu bopp di ko soññee suñu suñu bokkum taalibe kon ngeen déggee ko noonu lu góorlu bu baax a baax a baax a baax. kon bokki taalibe yi ñun ñëpp lañ ko déggee noonu te dëgg la noo ngi ci woon waaye lu gën a xam ne ay daruriyaat la lu mënta ñàkk lay doon ndax loo joxe suñu bopp ku joxe sa bopp nag dangay ngay tàmbalee sa bopp da ngay defar sa bopp ba noppi door koo joxe te lii lépp mooy sottal suñ joxe ngeen joxe suñu bopp nan góorgóorlu bu baax a baax a baax nan góorgóorlu bu baax jërë ngeen jëf ñu ngi nuyu gan ñi ñii kilifa réew mi yebal ak kilifa diine yi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñu ngi leen di nuyu sëriñ sëriñ bi mi ngi leen di nuyu di sant di leen gërëm def wàcc ngeen woote na woote bi lislaam wuyu ngeen ko ci lislaam kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sëñ bi sant gërëm na leen fas yéen rek ci liggéeyu lislaam bu rëy nga xam ne mi ngi fii te suñ lépp xaj ci jërë ngeen jëf loolu mooy kàddu yi rek eh, eh, buñ fi doon yenn itam du jeex waaye nu tënk ko foofu rek ndax ma suñu xat na waaw te nam ni ko xawoon rek noo ngi yeesa suñu jaayante bu baax a baax a baax te fas yéene ko ànd ak yow ne ci nawet suñ ci sun ànd ak yow ci sun lépp incha allah waaw jërëjëf Mbacke cant yi mën mën mën mënu sant waxuma la taxawaay bii nga xam ne moom nga taxawal sëriñ bi waaye li ñu sedd dimbali ñu ci suñu bor dimbali ñu ci suñu jom dimbali ñu ci suñu diine loolu rek doy na suñu diggante ak yow kon mbàkki jërëjëf jërëjëf cheikh mohamadul muntaka ni ma ko waxe woon rek dañuy euh, euh, eggale lu li desoon ci gan ñi euh, ambassadeur arabie saoudite teew na ci bis bi sànq ci yor-yor la doon gisee ak sëriñ bi ànd ak jëf yu rëy nag jëf yu rëy def na ko ci bis bi teewal fi xaadimul xaramayni asharifayni roi Mohammed sis bu Maroc yebal na moom itam délégation ci sëriñ bi ànd ak jëf yu rëy jëf yu sedd xolub sëriñ bi ñi koy yëgal mbooloo mi docteur Khalil Sànna ànd ak mbooloo bàyyi Burkina Faso waat. bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Sidi Makhtar Mbacké xalif général des Mourides man ak delegation bi ma àndal. Monsieur Augustin Tin, ministre des forces armées le ministre Amadou Ba ministre économie et finances, Mansour Faye ministre de l'hydraulique monsieur Ari Ngouille ministre des mines monsieur Marito Nyan, Seydou Gueye ministre porte-parole du gouvernement M. ak monsieur Koulibaly, ministre secrétaire général du gouvernement ak soxna si madame Ndeye Mariam Bajan ak monsieur le ministre Birima Mangara ministre délégué chargé du budget Nous sommes ici ak Arona kombondofen Diouf ministre ak M. Cheikh chef Diop ak gouverneur de la région de Djourbel, avec ak directeur général la police nationale euh, Omar Mal ak euh, général de brigade muy général Victor Tin, muy patron sapeur pompier délégué général Abdulaziz Aziz Kébé ci délégation bi moom ak euh, Ibrahima directeur général administration territoriale Michel Ibrahim Diallo, directeur DAF Administration de l'automatisation du fichier, avec Cher Sadi Diop avec euh, le préfet département yi Mbake surtout avec le sous-préfet yi chef de service Nous ñu ici, ak nationale tamit mu gunge euh, Moustapha président euh, avec honorable député Yutaku, ñu gunge ñu ci bis bi sëriñ bi ñun la président yebal fii tey ci ñëw fii di tal nuyoo ak ziyaaram ci bis bu tëdd bi boole ci suñu bos ñun ñi nga xam ne moo ñu fi yebal ñoo ngi nuyu itam ci turam moom président de la république ak ziyaara mbooloom njaboot bi yépp ci jotaay bi di ko jaarale ci sa loxo jëwriñ di Serigne Mountakha Mbacké ñoo ngi nuyu ba tey te ziar kilifa diine yi ak kilifa aada yi fi teew yépp laata ñu sori ci wax bi président def ñu digal suñuy jokkee fi ñu jottali la njaalam ci mbokki taalibe yi nga xam ne dañu fase woon yéene ñëw fii ci bés bi yàlla def lu gën ci ñoom président wax ni itam moo ngi leen di sargal ci bis bi bés bi tëdd bi nga xam ne at bu nekk rekk yow sëñ bi bis boobu tey gën wone cër ak wàccuwaay bu ko yàlla jox ak dayoo bi nga xam ne moo am ci doomu aadama yépp jotaay tey bii ñu ma jutu wax nañu ko firndeel na ko lool ndax Sénégal yépp moo ñu wuy si àdduna bi yépp moo wuy si woote bi ginnaaw loolu sëñ bi ñoo ngi lay seedal ne liggéey bi nga xam ne dénkoon nga ko njaboot bi ci njiitalu sëriñ Basiru Abdou Khadre ngir njariñul màggal gi ak xewel yu mu àndal askan yi yëpp mën ci jot mën nañu la ko seedal ne def nañ ko anam bu rafet ren ndax lépp mot na lépp rafet na rawatina ci forum bi ak caravane yi nga xam ne dañu ko taxawal tem bi it bu ñu doon waxtaanee ren maanaam muy nan lañuy def ba jariñoo lépp luy jóge bitim réew te soxal ko boole ko ak tëye ak sàmm li nga xam ne ñun ñoo ko moom thème boobu thème ba nga xam ne dara ëpp ko sol rafetlu nañu ko dañu si war a bàyyi xel te di ko waxtaanee wax yu ne boroom xam-xam yi tee woon tamit ci forum bi jóge fii ci réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel surtout di wax seen taxawaay rafet na lool ci wàllum caravane bi itam firndeel nañu lenn rek la muy Serigne Touba. sëriñ Touba ñëpp a ko bokk Serigne Touba ñëpp loolu la caravane bi firndeel ci anam yu nga xam ne defe na ko ci anam yu rafet lool lii lépp nag sëriñ bi liggéey bi nga xam ne day dëgëral ànduk jullit yi wax nañu ko léegi ak seenu bennoo te loolu mooy indi jàmm ci suñu réew loolu yépp nag mandargal na yow sëriñ bi Cheikh Sidi Maxtaar sa taxawaay dëgër bu takku ci diine lislaam ak ci réew mi yépp président jox ma ndigal naa yëggal mbooloo bi ak jullit yi cantam ci sa taxawaay boobu bu ñépp war a ràññee ci réew mi waxtu yu ne tamit ñépp teg nañ seen loxo gis nañu ko saa yuy jafe-jafe amee wala toll wala jaaxal yi xaw a bëri yëkk ne kàddu nga wootee ñu toog jàng alxuraan delloo xel yi ci yàlla def ay ñaan ba sax yenn saa yi ñu yegg ci ay sarax loolu yëpp seen taxawaay bu rafet la président mu ngi koy rafetlu di la ci sant bu baax a baax waxtu nekk itam yaa ngi woote luy boole jullit yi ñu nekk benn ak luy indi jàmm ci biir réew mi ask askan wi di woote ñu jaamu ci yàlla ak liggéey ne ko sa jëwriñ waxee léegi sa taxawaay bu rafet bi nag tax na président mu ngi lay jottali cantam ak gërëm ak gërëm réew mi yépp ak gërëm gouvernement bi ginnaaw loolu nee na mu ngi wat ñam ci barke bés bi ak ci barke borom bés bi yàlla defal ñu suñu biir réew ñun senegal jàmm bu sax ak xewal yu bari ànd ak jàmm ba dootuñu jéggaane dara bitim réew neena na itam mu ngi féddali yéenam moom président waxoon na fan yi passé ci taxawaayam ci bërëbu tëdd bii di tuuba ak mbooloom kër diine fu ñu nekk ndax gën a doolal islam bi gën a doolal jaboot yi surtout gën a doolal seen taxawaay yenn kilifa diine yi yàlla ngeen ñaaral ko yàlla jolli ko mën-mën ndax mu àggale yéenam yu mu sumb ci wàll yooyu nee itam mu ngi sàkku ngeen gën a ñaax askan wi si ñu gën a fagaru yokk seen yitte ci lépp lu leen di aar ak aar réew mi ci lu moon indi ay ak fitina te itam ñooy moñalante suñu biir réew ndax si wàllum boobu si ndigalu président de la république état def na jéego yu bari jéego yu mag ci wàllum aar réew mi bu mu ñëwee ba léegi recruté nañu yu bari si wàllum police am nañu si ñetti junni ak juróom téeméer ndaw yu ñu recruté ci wàllum gendarmerie naka noonu la ñuy lawal police yi ñu lawal gendarmerie yi waaye nag lu ci nekk tamit day fekk Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ku nekk def war a waaram fu mu taxawee parce que jàmm ji nag jàmm ñun ñëpp la jàmm ci biir kër yi jàmm ci koñ yi ci mbedd bi mën nañu ko aar waaye jàmm si xol yi sëriñ bi président mu ngi lay sàkku ngeen ñaan si ngeen def si ay jéego yu bëri bëri beneen fànn bi moo di ay euh, nit yi nga xam ne dañu fas yéene tamit bëgg gàkkal li nga xam ne mooy lu ñu soxal li nga xam ne rek mooy si Sénégal mooy suñu diine mooy surtout tarixa yi

كوك نك سين تخوا ياغي سي نيوغي لين سانت ديم دي بالو اخ نيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جيرجوف عبد الله داوود جالو واخ رافتنا لول يار نكو ني دلو كادو كي شيخ سيدي مختار كا امنا نوم لين دي ليرال وا سين بي دا فاي سانت بو باخ الاستاذ عبد الله ولد الشيخ سيدي ak delegation bu reuy bi mu jité ñu bayiko bot limit di mbolo mu takko takko mi ngi leen sant bu baax ñu déglu cheikh mamadou bachir mom serigne abdou khadir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 والصلاة والسلام على الرسول المكين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم أن يشمل آله من الأهل والأقرباء والأتباع والأحباء أجمعين أصحاب السماعة الشيوخ والعلماء وممثل القيادات الدينية والحركات الإسلامية في السنغال معالي وزير الداخلية ممثل رئيس الجمهورية والحكومة والوفد المرافق له أصحاب السعادة السفراء وعلى السلك الدبلوماسي المعتمدين ببلادنا أصحاب السيادة ممثلي تجمعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أيها الإخوة في الله وفي الإرادة أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فأتشرف بإلقاء هذه الكلمة للخليفة العام للمريد الشخصي للمختار مكة حفظه الله تعالى وزاد من نصره وتمك وزاد من نصره وتمكينه في هذه المناسبة الميمونة التي تختم بها فعاليات المجل لهذه السنة ثمان وثلاثين وأربعمائة وألف من الحجرة النبوية الشريفة والكلمة شكر وتذكير وتوجيه أما الشكر فيوجه الشيخ الخليفة إلى كل الحضور على ما تحمل من مشاق السفر والغربة للمشاركة في الاحتفال وإلى كافة المريدين وقيادتهم على المواقف الإيجابية المشهورة في الاحتفال وإلى كافة المريدين وقيادتهم على المواقف الإيجابية المشكورة التي أكدوا بها مجددا على صدق إرادتهم وحسن التزامهم بمبادئ الطريقة التي تدعو إلى الخدمة وتضحية من أجل المصلحة العامة وإلى كل من له يد معنوية أو مادية في إنجاح هذا الحدث الديني الوطني العظيم فلكم جميعا تشكرات الشيخ سيد المختار ودعواته لكم بالتوفيق في كل المشاريع والمهام أما التذكير فيتعلق بهذا الحدث الذي نجتمع من أجله وهو الاحتفال بمجل الذي نقوم به تنفيذا لأمر شيخنا أحمد القديم الذي دعانا فيه إلى شكر الله تعالى على منح المحن التي تعرض لها بقضاء الله وغفر فيها بما عجز عن شكره بمفرده فطلب من الإخوة من الأهل والإخوة والأتباع والأحباب على الوقوف معه في أداء هذا الواجب الرباني وإن هذا الحضور المكثف المشرف لا برهان على أن هؤلاء المدعوين لبوا الدعوة وتفاعلوا معها إيجابيا حتى صار الحدث عيدا وطنيا يشارك فيه ملايين من البشر في كل أنحاء المعمورة فهو إذا دعوة إلى الله تعالى من خلال الشكر على نعمه الظاهرة والباطنة أما التوجيه فهو أمر للمريدين ونصيحة لغيرهم من أهل القبلة فيدور حول حث الجميع على سلوك سواء السبيل التي هو وسط بين التفريط والإفراد فلا تكن مفرطا أو مفرطا بل استقم في سنة وأقسطا وهو الاستقامة التي هي الغاية والنهاية وأخبر بأن الاستقامة نهاية الصلاح والكرامة وهو المختار لهذه الأمة المرحومة وكذلك جعلناكم أمة وشرا لتكونوا الشعراء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولي yi في yi بوكي تالي بي بوكي ريبي ما يكيد سما كادو ngi yëkkati Serigne Cheikh Sidi Moukhtar mi nga xam ne moo fi toogee jataayu Cheikh Khadim yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba mboolem naal yi mu am ci lislaam ay liggéeyal Serigne Touba mu amee ko ni mu ko bëggee nii ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké waxe moom mi nga xam ne mooy jëwriñam ci yoon yépp te taxawaayam ci ginnaaw Serigne bi àdduna sépp rafetlu ko nii mu ko waxee ci taxawaayu Serigne bi ak kàddu yu jot li ci moom yóbbaale na lépp. kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di leen gërëm bu baax ginnaaw loolu nag sëriñ bi wax na ne waxtaan bi mu ngi koy tàmbalee ci sant yàlla sunu borom mi nu may ak wér ak tal ak fekke di ko law di ko lawal ci képp ku fi teew ngir ànd ak noonu ci dundal bis bii muy kilifa yi diine yi ak boroom xam-xam yi ak njiital réew ak gouvernement ak ñëpp ñuy yëngutu ci politique ak ña fi teew ca ambassadeur ak waa corps diplomatique yi nekk ci réew mi ak mboolem taalibe yi dikki wuy si wootab Serigne Touba bii mu waxoon na ko ci ñëpp santal yàlla ci xéwal yu màgg yi mu ko ci defal di gërëm bu baax mboolem kilifa yoonu murid yépp mbooloo yu topp ci seen ginnaaw ci taxawaay yu rafet ak yéen yu kawe ak jëf yu mat rafet muy luy feddali ak firnde seenu taalibe guddagu gi nga xam ne moo joxe sa bopp ak li nga am saa yu ñu ko soxlaa al muridu man laa yumliku shay'an wa laa yumliku shay'un te loolu yi ci ngeen nekk moom ngeen wane tiit ci bisu Serigne Touba bii yenn mbokk yi yu tedd yi fi teewal bokki boppam yi nga xam ne yéen ak moom yenn bokk cër ak taxawaay ci lislaam ji di kër yi diine yi ak mboolem kuréel lislaam yi ci biir réew mi ak bitim réew sëriñ bi neena mu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm bu baax te jokk bokk lislaam ji ne ko suñu borom diglee fa aslihu bayna axawaykum di ñaan suñu borom fay leen te sàmmal nu aaral nu bokk ak kóllëri di jaar suñu diggante te mu gën a te mu gën te mu gën a dëgëral suñu suñu ànd gën a yaatal suñu benn ci lépp luy doole lislaam ak luy jëm réew mi kanam sëriñ bi nee na mi ngi nuyu baax délégation bi fi teewal njiital réew mi président de la république Macky Sall ci njiital ministre de l' intérieur Abdoulaye Daouda Diallo ak mboolem ministère yi mu ànd la ci délégation bi bàyyiwuma kenn sëriñ bi nee na mi ngi leen di yóbbante ak cant ak ngërëm bu baax ci président di ko xamal ne mu ngi koy sant di ko gërëm di ko seere taalibi sëriñ Tuubaa yépp di ko xamal ne taxawaayu rafetlu na ko bu baax ci màggal gi mboolem lu nu sàkk woon ci moom ci màggal gi defe na ko ni ñu ko bëgg woon sëriñ bi nee na kon mi ngi koy ñaanal baax suñu borom dimbale ko jàppale ko kattanal ko ba li mu yéene ci réew mi ci lu baax mu mottali ko di cant yow mi xam ne yow la tegoon lépp ci sa loxo nga di ko saytu wane nga ci sa yitte ak sa farlu ak sa bëgg sëriñ bi ba lépp yéwén yàlla na suñu room fay leen yaa ak mboolem ministère yi ñu ko àndaloon ak mboolem ñi ci jàppoon ñëpp di nuyu bu baax yeneen yeneen mboolem yeneen formation politique yi fi teew lépp te ñu tudd ko di nuyu bu baax mboolem ambassadeur yi fi teewal seeni réew di nuyu bu baax mboolem société yi doon yëngatu ngir màggal gi mel ni nu ko bëggee woon. mi ngi nuy wax mi ngi mi ngi nuy bu baax mboole média bi yépp ci seen liggéey bi ñu doon def ci màggat gi ngi ñépp mën cee jot ginnaaw bu mu jutalee cant ak ngërëm nag mi ngi dellu si ci kàddu yi mu bàyyi baaxoo jëma kàddu yi mu baaxoo wax ak yéen jëma ko ci jataay bii mu di kàddi soññe ak fàttali la ci jiitu nag mooy fàttali lii nuy def mooy màggat di ndigalu Sëriñ Tuubaa nu koy dundal te sëriñ bi lépp lu muy def ndigalu yàlla sunu borom la jafe ndax yàlla suñu borom moo wax ci alxuraan ne washkuru li wala takfuruni sant leen samay xéwal tabañ a goradi kon màggal sant rek la cant gi nag li ko waral mooy xéewali biir ak bitti yu sotti ko ci kaw sëriñ bi rogalaat ba yegg ci ñëpp ku ne fi moom mbaa nga jege ko walla nga xam ko mbaa nga sob ko xéewal yooyu yi nag ñi ngi saw ba ci nattu yu bari yu fis ak yu nëbb yu dëggal la borom bi waxoon ne xasiba naasu ay yutraku yaqulu am wa hum la yaftarun kon xew-xew bi ak jaamu yàlla ci maqaamam sukkur mi nga xam ne bokk nañ ci maqaama yi gën a kawe sant nag ku am ndimbal rekk ko mën ndax wa qalilun ci loolu na ngeen xam ne sëriñ bi ci diine rekk lan woo te bëgg nu jariñu rekk tax mu woonu kon loolu yi kuy wuusi woote wuru ko fàtte loolu taxoon Cheikh Mouhamadou Fall Cheikh Mouhamadou Fall Mbacké daa wax ne ci bis bi ne magal leen jaamu yàlla ak moytu safaan jaamu gi nag mooy berne jàngi alquran tudd yàlla salatu ala nabi jàngi xasidaam yi bal azimuhu bi tilawati alquran wa llahi tabaraka wa taala bi anwaahi wa qiraati alqasaid wa itaami taami lil yataama wal masakin wa silati rahim wa ziyaarati salihin wa ma jara majraha sëriñ bi nee na mi ngi fàttali mboolem ñu bokkal diine ji waxee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci képp ku jiite mbooloo ñu def la ngay seen kilifa kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raayati te loolu moo di kenn ku nekk bàyyi xel ne yàlla def ko sàmmloo mbooloo mu jiite ci mu war a taxaw temm di yittewoo ak toppatoo lépp lu aju ji seen di seen biir diine ak seen wàllu àdduna te bu ëllëgee bu ñu dajee moom dana laaj kenn ku nekk da doon sab taxawaay ca mbooloo ma nga jiite sëriñ bi naan sëriñ bi naan lii nag tax na ba mu ngi sàkku ci kilifa yépp ñu gën a laxasaayuwaat yokk seen yitte ak seenu taxawaay ci jaarale njaboot gi ci yoon wa kilifa yi jaaroon ba am cër ak wàccuwaay bi ñu am ci yàlla amoon ko ci mbindeef yi liggéeyali lislaam ak seenum réew liggéey bu ñépp naw bokk ci la jiitoon ci seen taxawaay yi nag ndaw ñi toll ci jàng ñu jàngale na ba ñu xam seen diine ak la ci aju lépp boole ci yar leen ci jaamu yàlla ak jikko ak melo yu baax yi ab julli war a am ak def ci ñoom jom ak tàggat leen ci ñeme coono ak nangoo liggéey ngir mën a sukkandiku ci seen bopp ngir def seen warteef mu di loo xam ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jóge moo tax sunu borom wax ne laqad manna allahu ala al muminina isbaasa fihim rasulan min anfusihim yadlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikmata wa in kanu min xablu la fi dalalin mubin sëriñ bi wax ne nag li jug ngir gàllankoor lool ak dox diggante njaboot gi ak doxeenu mag ña bari na lool te sëriñ Tuubaa teeloon naa su ndaw ñi bàyyi loo leen xel bu baax ci xeeti yàqu-yàqu yi am tey ci sunu jamono ji ak ñu bari woon ginnaaw gu ñu gu ñu wan yoon yoon wa bi jaaroon mu jëm ci yàlla mu di sunnaam su sell sax mu fi bàyyi woon te ginnaaw mu saxaaba ya aar ko ak jàmbaar diin yi ñëw seen ginnaaw saxoon ca dundal ko ak yeesal ko ak aar ci lépp lu koy tilmal Serigne Touba wax ne loolu lépp nag tey su fekkoon ne kër la dañuy wax ne gent na ndax ñu bari ci nit ñi ginnaawal nañ ngir ma yonent bi jaar jaaroon jaar ci ay ñal yoo xam ne ay caaxaankat ñoo ko fent wëlbati ko couleur kaw ga rafetal ko ba ñu xamul jàpp na mooy dëgg moo tax Serigne Touba wax ne te tanabbahu yaa ayyuha shubbaanu qaadakumu ila al huda al mannaanu fi anna sunnata nabiyina al karim عليه أفضل الصلاة كل حين كاد ترى كرسم دار قد عفا في ذا الزمان لمدي الحنفاء وتبعتها سيرة الصحابة ذوي الهدى والثور والإجابة ثم تلاهما هدى الشيوخ ذوي التقاء والعلم والرسوخ إذ ترك اختفار آثار السلف لبدعة قد زينت بين الخلف sëriñ وحنا wax ndaw ñi ne بدا أكا leen di moo di ngeen fexe ba sàkku ji xam-xam te yàlla rek tax ngir ngeen mën a xàmmee li dëgg ak li du dëgg mu wax ne balaa kenn dem ak boppam na jiital loolu ku bëgg a dem yóbbaale ñeneen ña la topp ngir yàlla itam na nga xam lu ba xam bu baax fi nga jëm ak fa nga leen jëme mu wax ne fa saariu lil ilmi ajmaina li wa ci sil sil jalaali li wa ci sil jalaali qaasidina qabla tasaddur di walin infiraadi bi nafsi wal atbaai fi tamadi sëriñ bi wax na mi ngi soññ mboolem kilifa yépp ñu gën a jame suñu yitte suñu taxawaay ci yokk daaray alxuraan yi ak daaray xam-xam yi ak di taxaw bu baax ña fay jàng ak ña leen di jàngale te di leen toqi te di leen tàggat ci ñu nangoo liggéey bu baax te yar leen ci nangoo am kilifa ak wormaal ak wormaal leen te sàmmonteeg seen ndigal rawatina ndigal lu jëm ci sàmm lu ñëpp bokk yéen njaboot gi sëriñ bi nee na mi ngi leen di digal ngeen boole ci seenu njàng ak seenu gëstu yittewoo xam-xam bu baax liggéey bu rëy bii ni fu kilifa yi bàyyil ak li mu jur ci barke ak teraanga la leen ko moy ak lañu ñu ngànnaay woon ba ñu koy wut ci yitte ak dogu lañu ñu ko wute mu ne su ko defee ngeen tàmbulee ci xam ne sëriñ bi bi muy sos yoon wi ab taxawa ab taxawaayam akub liggéeyam waral lii lépp mboolem ñi ëpp ci ñi mu tofal mbooloo booba weesuwuñu fanweer te xam ne sëriñ bi ci boppam li ëpp ci li mu taalif ci fiq ak tasawuf boo fekkee ne Maam Mor Anta di dund ba jàngal na ko lenn ci ay njabootam te lépp ci njëlbeenam la kon ñooñu ñooñu mu jëkkoon a àndal seen yitte ju kawe ak seenu njàmbaar tax na ñu dem ci ay barab yu nit mësula dëkk gor ko sanc fa dëkk yoo xam ne lépp lu ab juddu war a yittewoo ci wàllu di sàmm wàllu addunam ak wàllu diinam ba ñu mujj xam ci ay natt ci ay dëkk ëpp na juróomi téeméer moo tax sëriñ bi wax ne mi ngi digal yoon yëpp ñu roy ak Cheikh Ibrahima Fati ak borom gaawaan ak seeni rakk ba ci sëriñ Masamba ci teel a nangoo am kilifa ak topp ci ginnaaw sa kilifa nongo dogalub yàlla ci jiital gi mu ko jiital te Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon na ne sa kilifa de loo ca fekk rek loolaay sa sens te ñu jël cheikh su mag si jëkk a topp sëriñ bi def seen ay dellukaay ci seen njiite ak seenu njàmbaar ak ci jiital gi ñu jiitaloon soxla soxla si yoon wi ak lépp lu koy sagal ak jëmi kanam ci seen biir bopp mu wax ne koroo ci gaa yu baax yi yàlla dana la wan ne la ñu amoon jombul képp ku góorgóorlu topp seen boor wala tuxassis fadla rabbin xat ala li siita xaddumin faqad fatajala wallazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaan alxaqna bihim zurriyatihim Mamor Dia borom Sam jamono yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa da daa wër ci tuubaa di daw nit ñi saa bu ñu jaaxlee ba xamuñu nu ñu def day ñëw delloo si nit ñi wax leen ne kii leen fi dajale jékkiwul ba dajal leen fi door seen nu mu leen di yore daa jekki ba xam nu mu leen di yore door leen dajale fii yéen ñi yëngatu ci wàllu luy defar am réew sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu leen gërëmee di rafetlu taxawaay bi ak yéene ji mu ngi leen di soññ ci ngeen gën a jege askan wi bu baax ngir gën a mën a xam li jiitu gën leen soxla gën leen a soxla ci seeni bëgg-bëgg su ko defee lu ngeen ca man ngeen taxaw ko di def ko nee na itam ndaw yi ngeen di bëgg a dimbale ci wàllu liggéey yu jëm ci taxawal ay bërëbu liggéeyukaay ngeen tàggat leen bu baax ci nu ñu saytoo koppar yi ngeen leen war a jox ak yoon wi ñu jaar ba mu mën leen amal njëriñ mi ngi mi ngi dellu di leen soññuwaat itam ci ngeen gën a taxaw baykat yi ak sàmm yi ak mbooleem liggéeykat yi suqali seenu réew mi ngi rafetlu ci mi ngi rafet lu baax nag ci waxtaan wu mën a indi ak déggoo ak dal ci réew mi ngi sàkku ci askan wi ñuy matu jëpp jëf wala wala wax ju mën indi fitna wala ak xàjjali ko ci biir réew mi ci biir loolu itam ñi ngi naqarlu bu baax a baax li nga xam ne xew na fan ci ki nga xam ne rey nañ ko ndax xam ne loolu bokk na ci li taal fitna ci biirum réew tawal fitnatu ashadu min al qatli kon sëriñ bi nee na mi ngi soññ njaboot gi yépp ak taalibe yëpp ak réew mépp kenn ku ci ne ñu xam ne bu nguur gi góor góorgóorloo itam ci def wàllu sécurité ñoom ci seen wàllu bopp itam am nañ seen responsabilité kon kenn ku ci ne loo ci gisati ci loo xam ne xam nga ne lu mën a indi fitna jooju la nanga nga fexe ba leer ko ba ñëpp ña ko war a saytu xam ko sëriñ bi wax na ne nañu moytandiku pom mu bari mi ci réew mi ak yàqate alal yi ci loo xam ne du farata ngir xam ne kuy def loolu yow seytaane képp bokkub atte te innal mubasdirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuran ginnaaw loolu nag bala ñoo jeexal ñu andi tuuti ci mbirum wasiila ak tawasul ak jaayante la dale ci jamono yonent bi jaar ci saxaaba yi ba ci borom borom ñeenti ngir yi mosuñoo wuute ci loolu ci mujjug 1300 la menn mbooloo jug wax ne wasiila ak tawasul ci yonente bi ak gaa yu baax yi yàlla gërëm bokkul ci lislaam ndax bokkaale la mu teg ca ne barkeelu ci ñoom ak ziyaare leen jaamu xërëm la ak ku kéefar loolu nag mu ngi juddee ci bëre bu ñu solal mbubum diine bu xewoon ci réewi arab yi ci penku waaye loolu du seen di seen xalaat dafa jur wuute gu xóot digganteem ak mbooloo mi gën a bari ci xulamaa ahli sunna ak chia bëri boobu nag moolaw ak mbubum diine ba ci réew mi te kenn ku ne xam na ne bëri boobu ak yi mu nuroo ci tur bi baaxul wu ko ndax ñi dañoo gëmoon yàlla ak diine ji dara gënu dara gënu cee mbooloo mi gàntal wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna loolu nag saa su ñu ko waxee tuub ay woy jëm lañ leen jàppe jàppale borom waxee alxuraan فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخصوهم واحصروهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فمن يوم بني سين فايت جيلتي موسي لو يوسي تجيلتي جيفا تجيلتي نحمد محمد بن بن بورك لا يالا دغال سي جيلتي دون لي تيمي دانيو مسا گن نه صريحه اك حقيقه كين مودو نه حاجه لي الاسلام ndax mom yalla subhanahu wa ta'ala huwa والآخر والظاهر والباطن لولو ما ورا سرين توا وحنا فواجب على العباد ترى جمعهما لكي ينال البر وسيلة لك عربنا مود لب لو خمنا دعو كوي جهديكو بانغ سوكو ديكو جا بانغ جار سنجر أم لجود بايعك فنج جم باهم لجريري بعد أخذ لجرجال مود لب لو يديم ديكو ولو يسوكو ديكو انجر انجر ساعة جفلو لولو ما نانيك جنتواي ولا جف ولا جف جو جف wala xalaat wala ay wax wala jëmm nit ku baax koo yaakaar ci moom mayu yàlla ak ngërëmam nga jaar ci moom tawasul ci moom ngir jege yàlla walla mu may la looy sàkku walla mu musal la ci loo ragal walla mu baal la say bàkkaar wala mu fajal la say aju boroom xam-xam yi dañu ko def ñetti xaaj yoo xam ne nuñ ci kon jërul guddal ak firi waaye fi juyoo gi nekk moo di tawasul ci jëmmi yonent bi ak lu mel ne barkeelu ci coom ak ziyaare raw da tomba ak nit yàlla yi fi la juyoo bi ndax am na ci koo xam ne da koo araamal ndax nee na képp kuy sàkku ci ñoom ñaan seen ginaaw wala chafaan wala ak ñaanam wala siyaare seen bàmmeel yaa ngi bokkaale bàkkaar bi gëna a ci xeeti bokkaale yi te sunu borom dafa wax ne it lool ndax ko xam diggante tu naa ñu gàttal waxtaan wi te delloo ko ci sunna rek abridoo bi salaate fa inna siddatal xarri min fayhi jahannam yàlla suñ boom dafa wax ne yaa ayyuhal lazina am ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila wa jaahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ulama u tafsir tafsir nee nañu baatu wasila ci aay bii nu wax daa matale mboolem xeeti tawasul ak jëf ju baax joo xam ne mën naa tax jaam bi jege boroom am na borom xam-xam bu mag bu ñuy wax docteur du jawda nee na baatu wasila bi yàlla jëfandikoo ci aay bi ëmbaale na xeetu jàmm yàlla yépp ak mboolem jëf ju baax lu mel ne siyaare gaa yu baax yi ak tawassul ci ñoom ci seen wàccuwaay ak seen wor ma ji leen yàlla bay ulaa'ika allasiina yad'uuna yabtaxuuna ilaa rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu aay bi li muy firi mooy yéefar yi nga xam ne dañoo daa jàmm ab yonente ak malaayika mooy leen ñooñ ngeen di jàmm ñoom dañu wut wasiila ci ñi leen gën a kawe ngir ñu yeggale leen ci yàlla lool nag su amee kon kon kon lu waral ngeen ngeen di jàpp yàlla ñu wax ne maanaam loolu ëmbaal ne tawasul ci gaa yu baax yi ngir jege yàlla te ku ko firee noonu mënu ko wutal firnde wala dalil te jamono yonente bi am na firnde ju wér ne tawasul daan am jëkk jëkk ñu yónni yónni yonente bi sallallahu alayhi wa yahud bani nadir lu jiitu lislaam suñu daa ñaan seen aajo daanañu tawasul ci jëmmi yonent bi yonent yàlla muhammad waaye bi ko yàlla yónnee ngir mu woote diine lislaam la ñu bàyyi tawasul ci moom ngir rëy ak wedd gu ñu ko wedd moom la suñu borom di nettali ci alxuraan di wax ne walamma jaahum kitaabun min indillaahi musaddiqun lima mahum wa kaanu min qablu yastaftihuuna ala lisini kafaru فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بوكو نتي دا